waaw auzu billaahi mina yàlla jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba jërëjëf Serigne Touba ginnaaw ma sant yàlla jërëjëf Yonent bi di gërëm sama ñaari waajur di ñaanal sama yaay fu mu tëdd fu mu jëm gën a ko fi mu jógee di ñaan yàlla suñu borom suuf sedd si si kawam suuf woyof si kawam di ko ñaanal yàlla suñu borom xare ko àjjana sa àjjana fi daw si waaw di ñaanal suñu papa wér yàlla suñu borom bàyyi ko ba si kanam muy samay xarit yu ma àndal yëpp ñu waa récupéré di waa dal jàmm waa mbeex bi waa ban bi waa zone France bàyyi ma kenn di woo ko AG Thiaré Gueye yëpp di woo suma xarit yi may àndal entraînement képp ku may jàppale contact muy ànd yow si wàllu musculation bépp muy côté bépp maa ngi sant a la gërëm di woo ñoo bokkal ci côté papa ñoo bokkal ci côté goro suma soxna di sant ñëpp di gërëm ñëpp daal. Papa Ndoye. waaw auzu billaahi mina ñu ngi sant ñi fi teew ñëpp di sant journaliste yi di sant promoteur bi waaw di ko ñaanal journée bi yàlla mu doon journée bu réussir. jàll si jàmm ak salaam yàlla may ma ndam di sant sama yaay ak sama papa bu baax a baax a baax a baax di nuyu ñu fi teew ñëpp suñu papa yi waa CNG ak ñëpp ñu ngi leen di sant di leen gërëm waaw di sant ñi nga xamante ne nii ñooy jàpp ci combat bi waaw ñu leen ñàkk bañ a delloo njukkal di leen wax ne gis nañ li ñuy def yëpp ku ci mel ni paa Abdou booy ñu ngi koy sant bu baax a baax a baax a baax gis nañ li muy jàppe bu baax a baax a baax soxna Xayta Seck taalibe Alaaji Baara bi borom léegi-léegi ñu ngi koy sant tamit di ko woo di ko mu gën a jàpp di sant sama yaay ak sama papa bu baax a baax a baax a baax di sant Saliou Saliou Saliou Saliou Fall euh, surtout sëñ Mansour surtout Alaaji Mansour bi ñu ngi koy woo ci combat bi baax a baax a baax gis nañ ni muy jàppe di sant ñëpp di woo ñëpp ci combat bi waaw ñu ñëw gën a jàpp gis nañ ni ñuy jàppe ñu ngi leen di woo ñoom ñëpp di leen remercier waaw. jërëjëf loolu am na solo Coly fan nga toll ci waajtaay bi. ah maa maa ngi waajal daal pare naa daa mel. pare ah pare naa de saa bu keroog parole ba heure bi dootoo pare mu dëgg fa yàlla di combat bi taxawee ba léegi. pare nga sur tous les plans contact beeg. lépp pare naa si lépp xaar suma ndam jot mu jëli ko rek. kon loolu tax nga teel ko avertir nga ne ko loo entraîné doyul bi ngeen a jàkkaarloo fële arène nationale teeloon nga ko avertir ni ko liggéeyee loolu liggéey doyul ñoo ko gisee nii. mu ngi ci état nice moom foo ko fekk day nekk si état waaw nice. Hmm. mu ngi ci de waaw. te da nga bëgg mu pare. gën a pare kay. pare na su waaye pare na bu doon suba sax pare na ki boo xoolee la nga xam ne pare na. Ah. ki jàmbaar ki noppi day pare. laajul mu wàññi euh, poids beeg yooyu. non la concerné ma ko gisee nii. Ah. pare na de. kon ñu ko ciblé woon suba mu bëre. léegi jàmbaar la. Hmm. ki du xaar. du xaar. dañ koy xaar rek mais du xaar. ki jàmbaar la saa na nga bëgg ko la attaqué na ñu ñaar dañuy da ji runkum daje. Hmm. leen da ngeen waaw man moom li ma waxoon rek laay waxaat la man amul adversaire buy taxaw sama kanam may taxaw naa dama lay xaar wala may taxaw di la may ay li koy waxee ay round observation ak yooyu noonu man xaw ma yooyu rawatina moom mii bu arbitre wàccee loxoom rek maa ngi ci kawam incha allah. yow da ngay dal ci bu arbitre wàccee loxoom kii duma ko may mu xalaat amul xalaat. incha allah ci kawam ñëpp réccu nañ ko. waaw mais bokkul ñooñu nga wax ni Pape Ndoye waaw bu arbitre sifflé incha allah rabbi maa ngi ñaan yàlla suñu borom moom mi am ndam maa ngi koy ñaan yàlla suñu borom moom may man ndam waaye daal li ma ko mën a xamal mooy dama koy doolee rek mu préparé waale ko mooy bu arbitre wàccee loxoom rek maa ngi si kawam. kon na vigilant. non kii xam nga lu ma ko sant suuru làmb ja na ñëw rek taxaw. ñëw taxaw kii yore yore bor ay supporteram ah war a fay si bor si bor bu biir Fass dugg Fass duggaat fa duggaat fa trois derniers combats bi mu mu bëre ko Fass nga naan. waaw loolu yëpp dëgg la sampion la ndaanaan la jàmbaar la waaye dama ko gën a doon loolu lépp loolu ma ko waxal yëpp dama ko gën a doon. yaa gën a doon maa ko gën a doon kilifa mi doon der. déggoo li ma la wax bu arbitre sifflé di ngeen gis lu ngeen mosul gis ci àdduna Pam Ndoye ku taxaw ci kanamam da ngay puus. da puus. <laughs> mën naa ne. saa dama yaakaar ne coxotaaru xelam bu baax day fooy xelam naa yaakaar ne. Ah, ne bu ñu fooy waay nekk ñun ay xale ay magum jëm lañu waay ah, ay kilifa ñoo taxaw fi tamit. waaw Ah, ñu respecté ah arbitre bi nee na xaar bu mu xaar sa arbitre wàcce loxoom bala arbitre wàcce loxoom na ñëw loolu si moom moom si loolu si moom lay concerné loolu moom la concerné moom lu mu indi man laa ma yàq la ma si war liggéey meeru ay wax daa ma jugee loolu ma see wax lu bari kon bii su ma ñëwee damaa war a wàññi wax yokku jëf hmm. waaw ah mais foog ngeen wax nag instant moom ci wax la wax la ñu toll. waaw non non dëgg fa yàlla làmb ji moom samay supporter war a fay tam leen koy fay incha allah boo ko war a màcc. incha allah rabbi. pourtant nga ko ci bande yaa gën a ñàkk sens ci ñi nga xamante ne daje nañu. kon moom ñu ñàkk sens moom bari de waxoon na ko Jackson de. lii la ko waxoon comme nii mu wax man la ko waxee woon. Ah. comme nii mu wax man la woon Gamou Gueye. Ah. waaw xëy na yàlla suñu borom moo ko fa may ndam rek moom ñi gën a ës seen ikir laa il faut gën a ës. laa daan suñu combat ma ne moom am est-ce que am na taxaw leewaatoo. jeex na tàkk xam naa bii moo ngay raw te sa du bàyyi kii du bàyyi moo koy raw kii dof la day ñëw kii du bàyyi kii du xalaat déggoo la kii day ñëw loolu loolu mu wax noonu na ko wax ca kaw xamul sax lu ko ko wax loo xamul sax ku lu ko wax loo loolu lam fi ma teg sama bët dafa romb fii nii ma taxaw nii di bëre barke alxuraan yàlla xam na ko sama bët ci kaw laa ko teg ci kaw a kaw a kaw a kaw. waaye xalaat baax na ci da nee na doo xalaat. non fi ma bu ma yeggee fi ma war a xalaatee dinaa leen wax fi ma war a xalaat. fii fii waroo cee xalaat. fii du ma xalaat fii li ma daan indi laay indi incha allah rabi attaqué koñe gagné incha allah rabi amul xalaat. combat bi bi ku li fay numéro 2 bu arbitre sifflé ma attaqué ko koñe ko gagné ko incha allah rabi. li ma li mu wax nii moom loolu lay def de mais après day tëdd du xalaat kii dof la amul frein day dem rek day départ day ñëw moom force. waaye bu départ amul moom respecté wu ma nawloo ma ko conseil sax du la na ñëw xelam rek loolu man la ko wax waa Fass. waaw bu ngeen duggee ci géew bi dana la respecté. bon loolu man la koy wax di ko wax waa Fass ñu ko indi ko bu ñëwee day laal frein naaj. day tiir yaakaar laaj frein daawul boo boolee frein amee ak frein bi ak frein sa tànk boo boolee bloqué oto bi day drapé. fa la jëm kii du kii dof la Pape Ndoye day ñëw Ndoye maa lay xaar ñëwal Axil soo avee venu ubbi naa la porte yëpp boo ñëwee Axil. bu ñëwee mu fi fekk. Ah, après ngay comprendre rek. su ma ñëwee day jàpp gémmeñ rek loxo day dar gémmeñ rek kii sama alir sama alir attanu ko. mën naa jàpp parce que jël bëri laa koy daan. Hmm? dama koy daan ba tiit man. ba tiit yow waaw war na jàpp gémmeñ. saa ay jàpp tànk di yëpp mën na jàpp. bon ay paquet. mais mais soxalu naaj nag. sañ nga ko wax man soxor ma. Ah, la DA la DA la DA ah, boutique. kooku suma soxna la. ndax suma grand doog ci aar géej mooy borom këram. Ah. waaw. ñëw na ñëw rafet ndoy da nga barke da nga day non yow li nga sol dafa rafet. même yow li nga sol dafa rafet nice macha allah mais ma ay eh, ma diwoo suuf si. ba riir wuti qualifié numéro 2. est-ce lii doo ci tagg ngemb sax. yéen nekk yi ngeen war a tagg ngemb yi. ah non bàyyi naa soow du ma indi soow ku nekk ak li ma lay indil yow suuf laa lay indil riir wuti la dem suufu géej ngeen. moom moom xam suufu lan la. ah suufu géej comme yéen a en tout cas daal dinaa diwoo suuf riir wuti ko te du ma xaar te moom ñi mu àndal moom dinañ xamante ni kii du taxaw di ma xaar. Lamine neex naa ñemee ci signature mais ay buñ tëjee barrière ba arbitre wàcce loxoom dina gis beneen Pape Ndoye bokkul ak Pape Ndoye bi taxaw di wax te moom xam na li ma koy wax bu baax a baax a baax a baax. mais ñeme bi nga ñeme qualifié est-ce que xam nga xam nga xam nga qualifié. question qualifié damaa nekk ndaw am lu nekk lu nekk sama mbébét ma koy ñaan yàlla suñu borom mu yeggali ko ma gëm sama bopp di entraîner ànd ak sama mag ngir de Lac di ko ñaanal Lac Rose yàlla na ko yàlla may ndam ci combat bi mu jëm moom tamit. di ñaanal Gris 2 yàlla na ko yàlla may combat ek écurie fas bi yëpp ñi fa am combat yàlla leen yàlla may ndam ñi amul combat yàlla may leen ay combat mais damaa xam li nekk si man. mais xam nga li nekk ci moom est-ce que. man jéemu xam lu nekk si moom xam nga lu tax jéemu maa xam li nekk si moom. man adversaire li may indi laay appliqué man jéem ma xool li ngay indi yow. kon géew ba la nga bëgg moo fay. man li ma bëgg mooy am ci géew gi parce que moom li mu entraîné man du ma ko may mu def ko. ah entraîné na liggéey na. non liggéey na indi na état indi na doole boo ko xoolee nii xam ne am na doole gis nga biir bi dem na. instant bi abdominaux eh. yi mi ngi marqué foofu. Ah. waaw kon nag liggéey nga. kii kii dex na kii fii la woo daw foo taxawaay foo muy jiyee. séeréer boobu am na fa place rek dafa neex. fii dafa mër nekk. am na fa place dafa neex quoi. moom dafa mër dina neex de diw boobu. da lay neex ñoom la lu neex la ëttu bu garaaw nga ah, na ko de. comme. na ñëw rek dal sama kaw mën naa mais après bul xam loo fay jëlee mais après eh, moo tax nga yi. lan moo des écurie Fass. écurie Fass ne trois sa trois derniers combats yi nga def non deux non non deux deux deux derniers combats laa fa ma rek. waaw Fass bennoo wax ne écurie Fass. man Fass laa dugg aada Fass Fass bennoo la ne. amee ah, benn rek Fass bennoo laa amee defet amee amoo Fass benn du benn bu doon benn. du ñu wax Fass wax bennoo. 1-0 pat en te 2-0 lay doon. Ah. incha allah rabi di nuyu di di woo sumay xarit ñu may jàppale sumay grand ku mel ne si Moussa Oris. ak Aziz Abdou Aziz di woo incha allah ah di woo autorité caare géej bàyyi ma kenn maa ngi woo ñëw di woo met jeena ma jaay bu kër Massar di ko woo mu jàpp si di ñaanal Omar Kër Reug Reug yàlla suñu borom meeka ndam si kaw Sa Thiès di ñaanal di ñaanal képp ku am combat Abou Ndiasse taxe ñëpp sama gaay ay bas de ah bépp ku am combat caare ay amet dem mu war a bëri jëm téeri maa ngi ñaanal ñëpp bàyyi ma kenn képp ku am combat rek suñ gox rek maa la ñaanal yàlla suñu borom mel ndam di woo sumay xarit yëpp di woo ki Badr mu la waa récupéré ñu ngi si biir ak waa Dal Jàmm waa banc bi waa Petit Chief Grand Chief ñëpp mobilisation rabbi loolu mobilisation moom doy dama lay ñaan nag dama lay dama la jàppale même bul dara ma ñaari kaar sax ñëw taaral lamb yi tamit nga promoteur de la fête moom moom mooy moom jàmb billaahi ki jàmbaar la ki waa ko ñam farafa doona war a mobiliser moom mais xam nga lu ñu ñaari dara sa gars yi non NGB nañ ñëw gaan NGB nag dañoo war a ñëw. waaw di ci woowaale di ci woowaale waa NGB bi yëpp. waaw comme ni ko mbër waxee rek waa Fass waa na xam nga ñëpp di woo ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp ci làmb ji ñu ñëw xam nga mobiliser wu ñëw ñu duy stade bi ba mu fees dell. waaw di ko wax moom tamit waa goxam tamit même chose ñëpp ñu ñëw jàppale ko parce que ñaari ndaw la ñoo xamante ni nii dañuy wut làmb ja incha allahu rabbi dina neex tuus mi dina neex. bëre bi dina neex xeex bi dina neex. Hmm? waaw waaye loolu jël bi dina rëy waaye loolu yëpp kenn moo koy def muy man incha allahu rabbi di woo ñëpp ñi may jàppale Pape du Boy maa ngi koy woo bu baax a baax Chéri Ndeye Fatou maa ngi koy woo ci combat bi bu baax a baax soxna Xayta encore maa ngi koy woowaat ci combat di woo Saliou faal di woo ñëpp àdduna ñëpp Pape Mama Fall bu Géejawaay maa ngi koy woo tamit ci combat bi na si jàpp bu baax a baax a baax di woo sëñ Saliou Lo samp maam lamp maa ngi koy woo ci combat waaw di ko wax na gën a jàpp bu baax a baax waa yaaram aar maa ngi leen di ñaanal tamit ñu dem bay tëgg ay combat 200 millions. ana maire yooyu ngay wax ak ñeenti maire yi ngay wax ci bande annonce bi mooy ñan. bande annonce bi. ah wax nga ay ñeenti maire kay wax nga sama ñeenti. non ñooñu samay ñeenti soxna lañ mooy attaqué koñ ak gagné. Ah, soxna soxna ñooñu euh, adversaire bu ma bëreel mënoo cee mucc. adversaire bu ma mënti bëreel ci àdduna mënoo cee. bu ñoom fuñ jaar njëkk ñi ñooy fuñ jaar sa defee di nga am sa defee di nga am wala boobu soxna yi ñëwaguñ. Ah, chaque jour dañuy ñëw. ñu fi de. nelaw yow fii ci yow la ñuy yeewoo nag. bay mega bi leen jox xont pat leen rey wi ma lamin may sant sama gaa yëpp ah. yaa ngi dégg di woo ku mel ni may woo confession caari géej yëpp confession caari woo ñëw jàpp si làmb ji di woo ku mel ni Ibou suma xarit kooku ndaw la mel day jàppale mbir ci jeunesse di woo Banda Pam Ngom Yadd Cheikh Sow Baye Tafa képp ku yor confession caari géej maa lay woo di woo Tayr Anne Omar Seck Omar Thiaw may woo ñëpp bàyyi ma kenn di may may woo sama xarit ma àndal ku mel ni moomu Sédhiou usine Birane Omar Kane rek Galassi la Bas de. dara aada borom maa ngi koy woo. day xaar non day xaar kii day. kii day xaar xam nga ma bi gis nga kii day xaar xaaral fi ne nii wax ji sax sama gara aada borom Milan maa ngi koy woo ci combat bu euh, baax. papa Ndiaye. Séeri Kéba Maas góor gi samay raq ñoom ñëpp ñi ma àndal ñëpp maa ngi leen di remercier bu baax gis nga dañoo bàyyi seen ay yite yëpp ñoom Bob Male Ala Cuun Ibrahim nga samay mag samay xarit samay raq di ma jàppale bu baax a baax a baax maa ngi leen di maa non man bongowu ma ñi may woo nii samay mag samay samay raq lañ parce que tey jii tamit Lamine fii nit ku la nit koo nekkal mu nekkal la rek war nga koo mën a nekkal waaw santul ni doo sant yàlla ñun dañuy sant nit bu ñu defalee lu sedd suñu xol dañ lay sant bu baax a baax di sant àdduna yëpp ba fi mu dëkk moom am na fa ñoo xamante ne samay soppe lañ maa ngi leen di sant bu baax a baax baax fa mu yeewoo noonu ëppale ma fa dara barke alxuraan su ma fa amee solo dama fay dugg sam papa caaro dëkk di leen nuyuwaale ñoom ñëpp caaroy géej caaroy géej moom xam na li may wax di sant sama sama sama sama yaay tamit sama waa dëkk yaay yëpp ban koñ la dëkk la dëkk caaray ban koñ nga dëkk caaray ma wax ko mu dem wis fa dara waaw bu waaw loolu day dara muusantu ma wax ko mu dem wis fa dara parce que ah, dafa fay dem léegi bu fa wisee nag waaw mais moo tax garaawul du ma ko wax parce que dafa bëgg xam instant bi te du xam waaw ndax caaro yi maa ngi fay dugg every day every night nice kii bi dañ ci la Lamine fer nga dëgg doo wax ah may woo sama gars yi ay nag li dafa neex quoi mm-hmm. ñu ñaar duñu ay duñu ay noon ay adversaire ñoo mën a may ndax xaalis yaa ngi dégg li may may sant suma gars yi nekk si biti nag xam nga nit moom mënoo tolloore ñëpp mhm. yaa ngi dégg mënoo jóg di dem ñu la damay dem nga daax kenn man loolu loolu loolu mën wax man man du ma genre boobu man du ma man du ma rejeté kenn mhm. man ku ñëw pour ànd ak man rek jo benn oto laa jëloon décision mais dañoo ñëw ma dem uti waa ñaari oto mhm. loolu moom xaw a loolu moom xaw a yàggal yaa ngi dégg ma leen mo sañoon na ñoom ñëppay dugg mais jaa pexem yàlla dogam dañoo am fii suñ kilifa moo tee ñu dugg te loolu mënuñu si dara waaw may woo ñëpp di woo sant suma soxna bu baax ak sumay goro ñoom Modou Faye Matar Faye Isa Faye bàyyi ma kenn jël nuyoo bi di ko teg Coly Faye suma turandoo di jël nuyoo bi di ko teg si loxo Modou Faye monsieur delu ma ko ñëpp ak suma xarit yëpp ak suma ñaanal suma yaay baax sant suma benn mag bu ñuy wax Khady Diop di ko ñaanal moom di ko wax moom day jàpp suma day solan suma di ko ñaanal yàlla suñu borom defal ko jàmm ak suma yaay Fandiaye Yàdd non jotuma damaa xoj ñëwal kaay. déedéet jotu ko waaw waaw sant suma yaay Fandiaye Wade. ma loolu dara ma lii la dara yaa ngi dégg lii du dara yaa ngi dégg sant suma yaay Fandiaye Yàdd Euh, macha allah lii rafet na lii rafet na suma yaay fa jaay yàdd di jërëñu di woo sumay jigéen ñu nekk ODCAV bi nekk Sika Mbaaw ku mel ni Banna ak madame si ay ñoom papi gars yi nekk foofu ñooñu ay borom baax lañ damay ñëw foofu di kafa ñoom di ree ñoom yaakaar naa ñoom dinañ jàpp si lamb ji maa ngi woo ñëpp bàyyi ma kenn képp ku war a jàpp si lamb ji maa ngi lay woo ñëw ñu ki fay waa Yaram Art Events Monastir Rimondo jëndalal mbëri ay billets ay billets waaw ñun ñaar ñëpp ay billets na leen jox ay billets ah waaw lu ñu jàppale baax na moo xam lu ñu mën bolok rek waaw bolok la na yow nga ñu do respecté ah, bu bolok combat spécial ku nekk jox leen benn bolok ñaari bolok def léegi Kéba Kane naa ko muñ leen ku nekk bolok waaw Lamine yokk ko la sa loxo nag ah ni ni du xeeb ñàkk ñaan leen xeeb ñàkk jàmbur mais léegi ñaan ko benn bolok ñaan benn bolok rek man ko li maa lay ñaan nga may ma six bolok wala ñaan ko bolok rek waaw Kéba ñu may benn bolok Kéba maa ngi koy ñaan bolok na ma may may sama adversaire a Tour du Monde tamit même chose na ma jàppale jàppale sama adversaire yaa ngi dégg ñu jàppale ñu bu baax a baax a baax a baax ci làmb ji maa ngi nuyu ñëpp daal Lamine ñëpp ñëpp ñëpp nañ ci yéen nuyante leen mais Mbathio Sall ñoo ñooy ñëwoon ren sa trop waaw waaw le mot de la fin kaay promoteur ñu lay nuyu baax di la ziar Mbathio Sall ñooy rafet na waaw jàpp ci làmb ji la DA boutique ñoo fi man xoolal bi ñu ki sancel eh, génnal sancel bi Pape man damaa yaakaaroon ni tey la korite sax baab gis nga sañse baab baab Ndiaye gis ah, lan nga ci yokk waaw Lamine waaw dama ci doon dolli euh, combat spécial bu bu Vieux Top ak Pram mhm. donc ñu ngi ko duppee suñu xarit aussi suñu grand muy euh, gaaw su Kona gaaw su Kona bi nga xam ne mooy président mouvement jot na moom lañ tuddee combat spécial bi nga xam ne mooy dox ci diggante Pram ak ki nga xam ne mooy Vieux Top incha allah le 18 mars ñu ci woowaat ñëpp ah di ci woowaat ñëpp sponsors yi partenaires yi après mooy loolu. a xaaral xaaral nuyoo xaaral nuyoo gars yi jël ko waaw leen gars jël ko ñu ñu photo loolu am na solo kontaan nañ ci ñoom bu baax a baax di leen wax ne làmb nii la ah bokk ndey yéen a bokk baay rendez-vous le 18 mars arène nationale. di kontaan ci la DA boutique ak Léo restaurant Léo fii ci point E ci wetu jumaa ji. la DA <laughs> salaamaaleykum ginnaaw bu ñu santee yàlla julli ci yonante bi sallallahu alayhi wa ñu ngi sant suñuy waa ñaari waajur di sant bu baax assistance bi fi nekk yëpp di sant presse bi bu baax di leen santaat euh, di sant bu baax euh, Thiam mi fi nekkal CNG nuyoo président CNG sa loxo laa koy teg. di nuyu aussi sama ñaari papa yi père Ibrahima mbay ak père Bourkhane di leen sant di leen gërëm aussi ñu ngi jàpp ci liggéey bu baax a baax di nuyu aussi sama ñaari champion yi Coly Faye 2 ak euh, Papa di sant aussi sécurité bi police nationale maa ngi leen di sant bu baax leen gërëm di di sant aussi équipe yaaram aar bi yëpp donc Lamine su ma jugee ci loolu damay sant bu baax ki nga xam ne mooy euh, Mbathio Sall borom la DEA boutique. mi nga xam ne moo moo sañsel sama ñaari champion yi ak yow waaw te loxo bi set wicc te gaaw yow xam nga ci dara donc di sant aussi Mouhamed sama xarit bi sama frère mi nga xam ne moom mooy euh, propriétaire restaurant bi Léo di ko sant bu baax muy sama partenaire depuis ba Yaram Art taxawee ba léegi mu ngi ci ànd ak man ci liggéey bi saa su ne di ma jàppale bu baax a baax dina wax ni yaaram Art nag indiwaat na beneen affiche ginnaaw bu nu jugee ci euh, Gamou Gueye Tapha taxawal nañu affiche bi nga xam ne mooy euh, Papa Ndoye ak ki nga xam ne mooy Coly Faye numéro 2 di woo amateur yëpp di leen wax incha allah le 18 mars balaa ñoo um koor cadeau bii la Yaram Art andil ñi nga xam ne ñooy amateuru làmb yi di ci woo aussi yeneen partenaires yeeg yeneen sponsor yu ci mel ni ETDR euh, e bu Kanji moo ko ci woo baax baax di ko nuyu di ko tatagal di ko jox wàcc waayam sama xarit la sama conseil ci làmb ji di woo aussi la grande dame la dame forte Catalina bu bu King sama xarit la sama nit la donc moo ko ci woo bu baax a baax di woo yeneen partenaires rek yeneen sponsors yi nga xam ne ñooy jàpp ci làmb ji di woo aussi le président des amateurs sama xarit yàgg nañu côtoyer yàgg na jàpp ci suñuy événement monsieur Goro Ndoye président des amateurs moo ko ciy woo bu baax a baax euh, di woo aussi bépp amateur buy dundu làmb ñu ngi ci ñu ngi ko ci woo bu baax waa incha allah le 18 mars. waaw ñu ngi ci wàcca ñu ngi ci wàccaay waaw daanaka pare na yemb na parce que bon comme yaram aar ah, nu ñu yàgg nu ñu yàgg liggéeyee dañuy teg suñu projet annuel donc projet bi dafa nekk projet boo xam ne ficelé nañ ko bon avant ouverture saison bi donc euh, liggéey bi ma daanaka yemb na bés bi rek la ñuy xaar incha allah ñu def si li ñuy war a def donc Coly Faye ak Pape Ndoye ngi nii jekk na combat préliminaire yi yëpp mat la ki ci mel ni euh, Pram ak Vieux Top allah dinañ ci bëri combat spécial bi Modou Anta euh, euh, sans frontière dina ci bëri ki nga xam ne mooy Siteu bu anti bu waa bu Colobane incha allah drapeau boobu ñu tibbee ko sunu jigéen sunu xarit favivi bu Sen TV bu Zik FM incha allah ñoom ñooy bëri incha allah drapeau donc drapeau bu mag bi drapeau. grand combat bi ñu ngi ko tuddee sunu jigéen sunu yaay suñu lépp koo xam ne euh, dafa yàgg nag sonn ci yaaram Art Events il elle dans l'ombre saa su ne comme marché bi mois wu jigéen ñi la donc dañ ci sargal jigéen yi incha allah ñu ci sargal ki nga xam ne mooy suñu nit euh, menace tour du monde bu Pape Cheikh Diallo bu madoo bu ndem si yàlla si Adja Degen Chimère incha allah moom la ñu tuddee drapeau kulifay Pape Ndoye mu rafetlu ko bu baax a baax ba ñu déggante mu rafetlu ko bu baax kontaan ci bu baax a baax pare pour def ci lépp li nga xam ne war na ci drapeau bi incha allah donc le 18 mars bu ngeen ñëwee di ngeen fa fekk décoration bu am solo xam ngeen Mounass Tour du Monde décoration la xam donc euh, attendez-vous à une une une grande grande grande grande grande décoration de Mounass Tour du Monde au niveau de l'arène nationale incha allah le mars. waa di nuyu aussi euh, balaa may. joxe kàddu gi di nuyu aussi les promoteurs di nuyu promoteurs yi fi nekk yëpp di teg nuyoo bi ci loxo ki nga xam ne moom mooy euh, sunu papa alaaji Gaston Mbengue di nuyu aussi Pape du Fall ñi nga xam ne ñoom mën naa ne ñoom ñooy suñuy kilifa ci wàllu ci wàllu ci wàllu ci wàllu làmb di profité aussi ci bi di jaale monde làmb ki nga xam ne mooy sunu pap sunu kilifa ci làmb ji aussi Serigne Modou Niang di ko jaale monde làmb yëpp di ko jaale famille am di ko ñaanal yàlla euh, xare ko àjjana suufu Touba bi oyof si kawam ci barke Seydina Mohamed sallallahu alayhi wa sallam di remercier aussi promoteur yëpp gis naa seeni appel saa su ne su ma affiche bu ma génnee rek ñu ngi may woo ñu ngi may félicité di profité aussi di félicité sunu naatangoo bi étranger bi Yves donc euh, journée bi mu jugee dimanche passé franchement monde làmb kontaan nañ ci bu baax wax innovation bu mu def franchement dafa touché ñëpp di ko encouragé di ko ñaanal yàlla yeneen affiche ak yeneen innovation incha allah ci wàllu làmb ñu ngi leen di sant bu waa di leen gërëm.